ngi tudd Amar président APU c'est Mame Abdul Aziz Dabakh Euh, tey jii ñu fi cérémonie occasion média bi fait assister, nous avons ko gisandoo am partenaire qui est l'EcoBank, nous avons may ay informatique pour salle de classe parce que informatique moo nu manqué woon salle de classe Nous avons dogal une ngeen cérémonie mais nous nañu ko mais suñu cri de cœur lu ci mooy les salles de classe gis ngeen ko noo ko gisandoo puis le manque des salle de classe te loolu nag nu wax ko ca kaw mooy tax nu am salle de salle de de de am partenaires yoo xam ne noonu lay jàppale pour nu defoon ay salle de classe parce que loolu rek mooy sunu cri de cœur parce que moom nañuy jooy pour ku nu jàppale dibalum ci partenaires yi pour mun nu ko jox dëgg yàlla waaw loolu daal waaw parce que actuellement am na ñu xam ne ba tey amu ko fu leen def te commencé na inscription yi école ubbi na mais ni ngi ñaan partenaire ñu ci mën a jàpp rek ñu jàppale pour ñu am fii ay salle de classe fii au niveau du lycée maam Abdoul Aziz Daba loolu daal mooy suñu problème te ni ngi koy ñaan te ni ngi remercier itam presse bi bu baax a baax ndax fu nu nekk rek sëriñ bu nu mun am yéen a ngi ñëw di nu taxaw di nu interviewer nuy wax di jooy su li nga xam ne moom lay mun nu metti pour ngeen jottali ko tam ah wax dëgg du leen ciy gërëm du ñuy ñaan yàlla nag ngeen jottali ko ah mun a àgg fu mu war a àgg ñu nu mun a jàppale def na ci ay salle de classe ci lycée bi loolu daal maa ngi leen di gërëm merci beaucoup